Touba bi di ko nangu tey di ko nangu ëllëg bu dee Macky Sall di ko liggéey ba xamatu li muy def ñun ci lay wuti sëriñ bu mag mu liggéeyal ñu ko ba boppam ñëwaat Macky Sall bi taxoon du mas a bàyyi Sénégal ñu di ko taal ñëpp kontaan ci moom buy bëgg a def bu ñu génne bànnee ni ci prison bi yëpp ñii rey ñii taal monter combat cooki fin gatsa gatsa président yi moo la ñu rey ñett président yi bi nekkoon yëpp ku dees yaa juraat conférence tamit jolli dëkk bi toj Kër Massar parking automobile Dakar Dem Dikk lu taal plus de cinquante oto su ma ñu daal président bu dee yaa mën a toog xalaat benn instant nga bàyyi leen Sénégal dina la ba dina xaar yow maa ngi njëkk a xaar yow lii la ay bu dee temps yi da ngay def nag dina wuti sëriñ ñaanal la day laa bëgg de ne ñooñu la ñu soo ko tekkiwul dara Sénégal bu demee élection door 5 pour cent soo ko ne pèse pas 1 pour cent xam nga dañuy dugal ci bopp yi man dem naa tudd Sénégal bu ma demee ci àll bi ñu ne ma foog ñuy dégg xamuñu ko ne ñu mos ñoo gis waaye li ñu firnde la ne ba mu jógee rek firnde jóg ñun béykat yi xamuñu firnde Sénégal réew jàmm la ci moom lu di jàmm. man mi nekk ci terrain bi nekkuma ci réseaux sociaux yi intéressé wu ma xam naa ne nit ñi war am ci école yi du boo yooyu du saaga nit ñi ak di wax rek diw ku ko saaga sa ndey di Sonko mii du dem saaga la ba ñëpp daal Sonko day du baax dafa jëm du jëm kon xam nga ni amnistie génne ay bandi ay rafet nit ay

te Macky Sall ñi teg wuñ dara nga te ngeen ci kaw muy wax ak ñoom koy waxal say noonu yow yaa ni Atépa Goudiaby bi escroc la léegi yow escroc ngay wax président président war a wax escroc yaa ko ah bu génn daal day bàyyi Sonko Aliou Tine mi nga xam ne yooyu la bañ moom moom la Sonko lay moom lay añee moom moom lay ndekkee guddee moom lay fanaanal moom lay bëccëgal Alioune Tine moomu di sa ndoom ñooñu ñooy génn naan soo ko dana génn dans quelques jours président yeboo ñu de président yeboo ñu de président ah man dinaa wuti sëriñ bu dee de tayoo lii parce que lii mën ko tay di ko def ñun duñ ko déggu tay Sénégal yëpp la leen di ñaan ngeen jóg taxaw di président amnistie ku ko mérité ni koy defal waaye crime kenn du ko amnistie rey taal dóor rendi coci fin yar sa gerte mosal combat ku nit sa ajuwaat ren te président o sa mil doo dëgg da koy morso ci mbedd yi ko traîné président mu ñu ak procureur Karim Diop o dañu ci image li yàq yëpp université bi ñu taal BRT bi ñu yàq dañu yëngu commencé teer bi ñu toj lu juróom bu toj xaw ko jàmbur président ñeme nga ñeme nga wax xalaat benn instant naan amnistie président yemoo parce que yàlla président moom ñu nag xaw ma yan lu tax ak foo ko jëlee mais tegal amnistie bi ci suuf amnistie bi moom ci suufa suufa suuf sinon président billaay maay jiitu si ñu ne xeex ne ma xeexle woon di troisième mandat doo ko fi def la président la ndax sama xel ne boo demoon troisième mandat ay dal la yow dèjà ñu ngi war a yokk quelques neuf mois rek moo dugg yëpp bëgg la nekk dina gañ fu nekk tey boo ñëw dee troisième mandat kon foo jëm ma jàmm laa la bëgg loon de ki la bëgg woon naa sa kër bi ki xasaw na sa doomu day la koy wax ku ne santul sa taar la bëgg waaye président yi ñu lay jaay rek dara raay yéen ñoo ñooy daal la ñoo la bëgg te laa jur gi moo la bëgg mooy wax dëgg mooy wax dëgg de sa xarit mooy wax dëgg sama xarit dëgg ñu jàkk sama xarit fii mooy wax ni en tant que benn boo ko yaakaar Macky Sall bu defee troisième mandat maa ngi dal ci kawam président ñu ko pourtant bu ma nekkee Màkka dégg ni comme 3 juillet la ma xam dégg ni maa ngi nekk ak euh, Dame Dieng bu leeral dama ko benn chambre de temps de def troisième mandat te boobu maire Sénégal yëpp recevoir na leen ñu ne ko dañ leen ñaan nga def troisième mandat ñëpp yaakaar na ma ki def def troisième mandat mu ñëw njuuy boobu ci ñoo xam ne añuñu reeruñu ndekkiwuñu seen biir daw na ndax liñ bëgg koy makki ne troisième mandat lay def taal Sénégal kon président boo defee lii Il def ko moi de c'est ça. ñu est élection yi benn mois bu ñu yokk le 2 avril vraiment loolu pour taxaw di wax la da ngaa plan, le nekk dérogation bi dérogation tout change sauf la loi du changement seuls les imbéciles ne changent pas ne lii yëfu dof nga ne dugub bi nii dof laa imbécile la. kon amnistie dañ ko teg ci suuf Sénégal yëpp dañoo taxaw ni ku taal kenn du la amnistie amnistie mooy lu la nga defoon yëpp effacé nañ ko jéggal nañ la demal ñibbi feccal bu la neex toppatoo nga dara dara dara dara kenn du la àtte kenn du la topp dara dara dara dara. day mel ni ba soo def dara dara dara dara sa waay jëf bi génn tal dëgg di ay jikkoog borom ba ca pax maanaam Ndiaye mu ne jikkoog borom ba ci pax maanaam Ndiaye mu ne tàmmul laago la boo tàmmee def lu bon ñu génn la xëy na loolu mos a liggéey bi tubaab mu ne l'habitude est une seconde nature. réew mi tàkkaat ba leen jàppee réew mi ci jàmm réew maa ngi doy nekk ñi yëngatu nii yëpp c'est avec l'énergie du désespoir mooy ñàkk ko xel bu ñu rek seen digg dàqee ñu jeex mais affaire bi jeex tàkk bu ñu wax du ngeen marche comme démb kenn marche